yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana woor bañ yaakaar ne du dogati waaye léeg-léeg mu bañ woor bañ yaakaar ne du woorati waaye gisuma yonent bi woor wenn woor ba mat sëkk lu may weeru ramadaan waaye gisuma it weer woo xam ne lam ca daan woor mu ëpp li muy woor ci weeru shaabaan am na beneen xadis boo xam ne dañ ca nañ ko ca waxe mooy li ëpp ci chaabaan da ko daan woor kaana yasu yasuumu chaabaana illa qalil <coughs> woor weeru chaabaan nag dana dimbale nit ki ci waajtaayu weeru kooram ndax dana tax mu xaw a gën a tàggatu ci woor ba nga xam ne buy àgg ci koor gi yaramam dina xaw a fàttaliku koor koor it dina gën a dana ci gën a sawar kon ànd ceeg cawarte ak kàttan ci booy dugg weeru koor loolu lu am solo la mu doon weer woo xam ne it bokk na ci lii wane ak màggam mooy suñu borom subhanahu wa taala da ci yëkkati jëfi jaam ñi fa moom maanaam malaayka yi li jaam ñi def ci at mi dañ koy gaaral suñu borom subhanahu wa taala ci weeru Shaabaan xam nañ ne suñu boroom moom sàkk na ay malaaka yoo xam ne lu jullit bi def ci suba gi wala bu bu ngoonee ñu gaaral ko suñ boroom waaye lu mu def ci nga ngoon gi it ñu xëyee gaaral ko suñu borom mu mel ne bis bu set rek duñ ko mënoon a waxee ne ay rapport dina dem waaye it kon at mi li muy jëf ci lu baax ay jëfam yépp rek mën nañ ne dañ koy gaaral suñu borom subhanahu wa taala loola li koy tegtale mooy yonent bi aleyhi salaatu wassalaam am na usaama bis mu laaj ko ne ko dama gis ngay woor lu bari ci weeru shaabaan di woor loo xam ne gisuma nga di ko woor ci weneen weer mu ne ko shaabaan nag day weer woo xam ne nit ñi dañ koy sàggane ndax dafa nekk ci diggante ñaari weer yoo xam ne wu ci nekk wuñ fonk la muy weeru rajab ak weeru koor te kat chambaan gii ñu nekk ci lañuy yëkkati jëfi jaam ñi yóbbu ko ci suñu boroom te man bëgg naa samay jëf buñ koy yëkkati fekk ma nekk ci koor kon loolu day wane màggu weer wi nga xam ne dañ ciy gaaral jëf yi suñu boroom subhanahu wa taala kon nag fexe ba waxtu woowa fekk la ci melokaan woo xam ne wu gërëm wuy gërëmloo suñu boroom la loolu kenn ku nekk war naa góorgóorlu kon ci nekk ci lu baax ci biir weer wi lépp lu mu doon def ci ak jaamu yàlla mu gën koo fonk bu nekkee ci weer wi ndax ngëneel loolu day wane ngëneelu weer wi waaye weer wi it am na guddi gu màgg goo xam ne nekk na ci mooy fukki fan yeeg juróom guddi fukki fukkeelu guddi geeg juróom guddi gu màgg la goo xam ne wax nañ ci ne suñu boroom subhanahu wa taala da ciy jéggal jaam ñi seeni bàkkaar lu may koo xam ne dafa nekk ci bokkaale wala koo xam ne dafa ëmbal ak noonoo mboroomum jullitam loola kon day tegtale ne weer wi weer wu màgg la woo xam ne guddi gii ci nekk guddi la guddi la gu màgg loolu yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ko wax ne ida kaana leylatu nisfi min chaabaan ittala allahu ila xalqihi fa yaxfiru lilmuminin wa yumli lilkaafirin wa yadaw ahlal xiqdi bi xiqdihim xata yadauhu beneen boo xam ne nañ ko ci waxe mooy yanzilu rabbuna tabaraka wa taala ila samaai dunia leylata nisfi min chaabaan fa yaxfiru li ahli l ardi illa mushrik aw mushaaxin loolu li muy wane rek mooy kon guddi gi guddi gu màgg la war cee kon bàyyi xel bu baax a baax gën cee jégglu suñu boroom gën cee tuub gën ko cee ñaan suñu boroom subhanahu wa taala ak yërmandeem ak ay xéwalam waaye it xadis boobu nga xam ne suñu boroom day dañ ci yonent bi day wax ne suñu boroom dina jéggal ñépp waaye ba des ku nekk ci di ko bokkaale waaye nag ak koo xam ne dafa ëmbal moroomam jullitam ak noonoo loolu it kon war naa tax ñu bàyyi xel ci laabal suñuy xol ci waxtu yépp waaye rawatina buñ nekkee ci waxtu wii képp koo xam ne am na lu dox diggam ak moroomam jullitam mu jéem koo baal jéem a setal xolam jéem laabal xolam bañ bañ ëmbal kenn dara nag yërmande ya yàlla suñ boroom juyaatu jii lépp lu ci lu koy xañ doomu aadama loola war na ko moytu war naa fexe ba bokk ci ñi suñ boroom subhanahu wa di jéggal yàlla ñu yàlla boole te la koy waral nag mooy ñu jéem a seetaat suñuy xol jéem laabal suñuy xol bañ a ëmbal kenn dara képp koo xam ne am nga lu la naqari ci moom nga jéem koo jéggal jéem a fexe ba daal guddi gi buy ñëw doo ëmbul kenn dara doo noonoog kenn te weer wii di weeru koor weer wii di weeru shaabaat nag ci lañuy waajal weeru màgg wi di weeru koor kon loolu it bokk na ci màggaayu weer wi mooy weer la woo xam ne suñu borom dina ci jéggal jaam ñi weer la woo xam ne ci la ñuy gaaral jëfi jaam yi suñu borom subhanahu wa taala ci at mi waaye weer la woo xam ne dafa sës ci weeru koor ñu war ko cee tàmbalee waajal muy gan gu màgg gi nga xam ne eh, ganuk yërmandi la ganuk goreel jaam ci sawara la eh, ganuk ngërëmul yàlla subhaanahu wa taala kon gan gu mel noonu kat nga xam ne saabu ñëwee seytaane yépp ñu jéng leen mboolem junne yi fetteerlu ñu jéng leen tëj bunti sawara ubbi bunti àjjana ba noppi suñ boroom yabal malaaka muy woote ci képp koo xam ne mu ngi bëgg lu baax di ko wut mu jublu si waaye di dàkku képp koo xam ne aw ay moo la moo la tax a jóg guddi gu jot suñ boroom subhaanahu wa taala goreel ñu baree baree bari ci sawara weer woowu kon gan la gu màgg koo xam ne jar na teertu jar na bàyyi xel waaye jar na waajal ni ko sëriñ bi di waxee ci yaa xayra dayfin di ko tatagal di ko dalal waaye di ñu ci jàngalaale nag màggu gan googu ak niñ ko war a waajale wax ne yaa xayra dayfin ata bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiban bila adadi di ko ca wax naan la dilta dayfan kariman zairan abadan mukarraman bi qirat taati wa sadadi kon màggaayu gan googu nga xam ne sëriñ bi wax nañu ne bu ñëwee niñ ko war a dalale niñ ko war a berndeele mooy topp suñ topp suñu borom subhanahu wa taala akum njub muy def lu baax wax lu baax moytu lépp loo xam ne suñu borom subhanahu wa tere na ko kon weer la woow bu ñëw buñ ci nekkee suñu xel war nañ koo def ci gan gu mag googu nga xam ne mi ngi ñëw ñu war a xam ni nga xam ne ni lañ ko war a waajale war koo dalal ndax bu jublu see ñu baree bari ndaw kundaay ñoom seen xel ci yokk lañ daan jënd ci ay xéewal rek lay dem daan jënd ci ceeb ak suukar ak meew ak yu demee noonu loolu xëy na wàññiwu dara waaye bàyyi xel geneen wet gi nga xam ne nag moo tax ñu war moom lañ ko war a gën a waajale واشهد أن لا مولانا محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول رسول الله أهل السلام sëriñ bi moom wax nañu niñ koy berndeele gan goo xam ne nag xam nga na koy berndeele dangay ngay xam na ko war a waajale kon ni ñu war a waajale weeru koor war ko ko séentoo dina am yenn rek yuñ ñu ci fàttali bokk na ci la ci jiitu mooy di ñaan suñu boroom subhanahu wa taala mu yeggaliñ ci jàmm ñaan suñu boroom tawfiq ci jaamu ko ci weer wi weer woor ko eh, taxaw ci eh, def ci lu baax loo xam ne danañu ko nangul loolu nit ki war na koy ñaan bu jubee weeru koor gis nañ nit yàlla yi daan faral di ñaan bokk na ci ñaan yi nga xam ne dañ koy faral di ñaan allahumma sallim nii ila ramadana wa sallim li ramadana wa tasallamhu minni mutaqabbala gis nañ sëriñ bi radiallahu anhu ci xasida googu di yaa xayra dayfin ba mu koy ubbi di ca wax allahumma rabba ramadaana sallim li ramadaana wa sallim nii sallimhu minni wa sallim ni minhu waj'alhu mutaqabbala kon loolu lu mat a bàyyi xel la kon yàlla nañ ci yàlla yeggale ci jàmm te nu tal ko te jaamu ko ci tamu nangul nu ko bokk na ci liñ koy waajale it mooy yeesal suñu tuub ndax weer wu ñuy dëgmal kat weer wu ñuy taataane la weer wu ñuy wuute lu baax la ah kuy taataan nag dangay fexe ba sa ndab set bala nga caa def te bokk na ci liy setal ndab yi nag di ko di ko raxas mooy ñu tuub tuubal suñu borom subhanahu wa taala ñaan ko mu jéggal ñu suñuy bàkkaar ndax am na ci bàkkaar yoo xam ne moom yonent bi waxoon nañu ne diggante weeru koor ak moroom ja dañuy kafaara waaye su fekkee ne nag nit ki moytu na bàkkaar yu mag yi te nit ki mu ngi def ay bàkkaar mën naa am muy def sax bàkkaar yu mag te du ko du ko yëg mën nay tudd di jëw muy wax loo xam ne mën nañ ko caa bindal bàkkaar yu mag a mag te du ko yëg kon nag bu ñu jubee weeru koor waxtu la woo xam ne war nañ ci yeesal suñu tuub sëriñ bi mi ngi ñu koy ñu koy jàngal ndax ci xasida googu ma nga cee wax naan ilayhi qad tubtu fi shaabaana an rajabin mujaddidan fiika ak lii bi tarki dadi loolee dañu koy jàngal ne kon moom ak fa mu toll da tuubal suñu boroom subhaanahu wa taala ci weeru shaabaan wi di yeesal yéenéem kon nun war nañ ko bàyyi xel te it tuub dana tax ñu nangu ñu nangul la say jëf te it kuy def lu baax jiital ca tuub da ca am solo moo tax suñu boroom subhanahu wa taala am na fu muy waxe wa man taaba da caa teg wa amila saaliha fa innahu yatuubu ilallahi mataaba kon yeesal ak tuub lu am solo la ci waxtu yu ñu toll waxtu yépp la jullit bi war a tuubal suñu boroom di ko jégglu waaye bu ñu jubee weeru koor nga bëgg a taataan ngërëmul yàlla ak yërmande yàlla war ngaa raxas sa ndab ba mu set mooy ñu gën a sellal xol yi tuubal suñu borom subhanahu wa taala ci rëcc-rëcc yi ak bàkkaar yi ngir yooyu ay jéng la yuy jéng doomu aadama di ko tayalloo bàkkaar yi day tilimal xol day tënk ay cër ci lu baax kon yéesal tuub googu lu am solo la waaye yéesal yéene it ndax looy jub rek naw ay topp yàlla lañuy ñuy berndeelee gan gi topp yàlla moom la ca jiitu mooy yéene kon buñ jubee koor gi kenn ku nekk war na yeesal yéeneem bu ca yeggee gën a yokk ay jëfam yu baax lu daan jàng ci alquran mu gën koo yokk lu daan jàng ci xasida mu gën koo yokk lu daan saraxe mu gën koo yokk lu daan dimbalee ci lu baax te man ko mu gën koo yokk loolu lépp nit ki da koy fasaale yéenewaale ko waajaale ko it lam ca man ci waajtaay loolu lu am am solo la ndax innamal amalu binniyaati jëfi jëfi jullit moom ay jëfam ma nga aju ca yéene jak yéene jakolal rek kon nag bàyyi xel yéene yooyu lu ama am solo la ci waajal eh, weeru màgg woowu waaye bokk na ci liñ ko war a waajale it mooy képp koo xam ne amoon nga bor ci weeru koor wi weesu nga góor-góorlu ci fay bor yooyu bala ngaa dugg siwaat ci weeru koor ak ah, ngànt mën na laa dab ba nga bañ koo fay ñàkk a fay borub koor nag ba koor ga dellusi si bu yow ca amul ngànt bàkkaar bu rëy da caa tege te it ay daan sax dina ca tege ndax boo ko demee fay am na luñ am na loo war a leleewoo loo war a joxe bis bu set jox ko miskiin yi loolu nag kon boo nekkee ci weer wii war na nga koo bàyyi xel te ñu di ko fàttali njaboot yi yi nga xam ne mën naa am amoon nañ ay bor buñ ci tollee wax ci waxtu wi ñu leen koy fàttali ndax yor ci ay fan bàyyi ba mu sës mën ngaa dem ba mu sës rek am lu la dikkal loo tax lu tax doo ko mën a woorati kon nag waxtu la woo xam ne li ñuy waajale weeru koor bokk na ci ñu fay bori koor yi nga xam ne amoon nañ ko ci koor gi weesu ca loola ñu koy tegtal ci ne weeru shaabaan war nañ cee bàyyi xel loolu sayduna aïcha radiallahu anha doon na wax ne daanaa am mboru koor duma ko mën a fay lu may fi ci weeru shaabaan la ko waral mooy yittewoo ak toppatoo gu ma doon toppatoo sang bi sallallahu alayhi wa sallam ba tax duma ko mën a woor waaye bu weeru Shaabaan ñëwee nag moom danaa ko jéem a woor kon loolu lañ cay dégg déggee mooy loo mën a am xat loo xat-xat mën ngaa ñàkk fay waaye boo xasee ba agsi ci weeru Shaabaan nag yittewoo bor ya nga yore woon fay ko loolu day daal di nekk day daal di doon lu farata lool moo tax ñu war di ko fàttaliku di ko waajale koor gi ñu jub jublu si bokk na ci li ñu war a bàyyi xel ci waajale ko teertoo ko gan gu màgg gi mooy baril lu ñuy jëf baril jëf yu baax yi nga xam ne dañ ci sàkku ay tuyaaba mooy xe mboolem xeeti naafile yi ma doon tudd léegi muy jàng alquran tudd yàlla jàng xasida jëf yu baax yépp daal mooy lu ci mën a nit nit lu mu ci mën a yokk rek mu yokk ko ci waaye bokk na ci li gën a baax nag moom ci ci waxtu wii mooy woor wooru ngàtt nga ndax sa bakkan gën a mën a waaj nga gën a mën a dugg ci weer wi ànd ci ak cawarte ndax waxtu bi ñuy ta ci njëlbeendiku waxtaan wi fàttali woon nañ xadiisu yonent bi sallallahu alayhi wa bi nga xam ne na Aïcha ma ko nettali wax ne yonent bi da daan woor lu baree bari léeg-léeg mu gëj a woor waaye weeru chambaan moom gisul weer woo xam ne lam cay woor moo ëpp li muy weer ci weeru chambaan kon li muy tegtale mooy buñ ci tollee ku ko man nga góor-góorlu ci kooru ngàtt nga di ko di ko def ngir waajale ko uh, weeru màgg woowu ñu ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu yeggaliñ ci jàmm di ko ñaan mu defal ñu tawfiix ñu woor ko te jaamu ko ci di ko ñaan it mu nangul nu ko di ko ñaan it mu fekkeloo ko at yu baree baree bari waaye di ko ñaan it mu yàggal fii suñu kilifa gi Cheikh Mouhamadou Mountakha yokk ko wér e, def jàmm ci réew mi def ko ci àdduna bi yëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa